rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, mbokki àdduna bi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci Leral TV Leral point net euh, ni ngeen ko xamee rek tey jii di bis bu màgg bis bi nga xam ne nag mooy gan ak àdduna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Leral TV nag gannaaw bi mu génne ay lokoom euh, fan la jëm ñu ni mi ngi jëm directement kër Cheikh Abbas Sall fekk fa kenn ci njabootam muy Mouhamadou Lamine Sall ñu war a waxtaan ak moom ci bis bu tedd bii. bis bi nga xam ne nag jullit ñëpp fu ne ci àdduna ñu ko fas yéene màggal ngir gën ak àdduna ku tedd ki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw loolu nag euh, Leral TV fas yéene wër borom xam-xam yi ngir it nag jokkoo ñoom ziar leen waaye ñu yëkkati seen kàddoot mbaaxee ko askan wi nga xam nit mu jullit ñëpp ñu ngi koy déglu di ko seetaan fii ak bitim réew kon nag mbooloo mi ah, ni ñu ko defee rek dañuy ñëw fi nag kër si maam Abbas Sall fekk fi kenn ci njabootam mi ci doomam muy Mouhamadou Lamine Sall ñu war ko dékk micro Leral TV ngir mu waxtaan ak julit ñi nga xam ne ci àdduna yëpp jullit ñëpp naw xam-xamam naw gis-gisam naw ay doom loola waral nag Leral TV bi mu génn rek dafa def directement ci kër gi ngir nag jox ko micro bi eh, bàyyi koog jullit ñëpp nag mu waxtaan ñoom sëñ Mohamed Lamine Sall ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax Leral TV mi ngi dikk tey ci kër gi ngir waxtaan see yow bismillah. Euh, mbokki jullit yi mbokki Sénégal euh, ñu ngi jaar ci maanaam waxukaay bi di télévision Leral TV comme ni ñu ko doon defee ak yëpp comme ni nga xam noonu lañ koy taxawoo di ko defee ci këru diini yëpp ñu ngi ciy jaar. di ziyaare mbooleem xalif généro yi ci réew mi eh, di ko jaare nag ci sunu xalifa bopp sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sall xalifa njabootu sëriñ Abbas di nuyu bokk yëpp di leen ndokkeel nag ci bis bu tedd bii ndokkeel gi nag ñu ngi koy def ba tey eh, ci turu ki nga xam ni mooy sunu xalifa di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sall ñu ànd ak njaboot sëñ Abbas yépp di màggal guddi gi comme ni ko sëñ Abbas daan defee euh, muy loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko jëkkee ndax dafa daan woor altine maanaam jàpp altine di ko woor ñu ni ko yaa Rasulullah ah lu woo waral altine bi ngay war bés bu nekk altine bu nekk mu ni ci laay judd moo tax sama bisu juddi la moo tax ma di ko woor kon yonent bi joxe na exemple ni màggal juddeem ki ko jëkk a def nag euh, ku yàlla rëbb la muy abu lahab nga xam ni def na loo xam ni yàlla tëkku na ko ni sawar la jëm boole na ci ñi dem sawara waaye nag moo jëkk a gàmm ndax ker bi Seydina Muhammad juddoo euh, benn jaawam bu ñu wax ba dafa ñëw ni ko Amina am na doom mu kontaan ci kontaan goo xam ne si ni ko yow mi ma ko wax goreel naa la bis ne ko tey fekk jaamam boobu doon doon nàmpal benn doom bu ñu wax eh, masruux kooku mooy dëkk nampal sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mu defoon kontaan googu mu kontaan woon ci bisu juddu yonent sallallahu alayhi moo tax moom itam altine bu nekk dañ koy génnee sawar yàlla nee day dem sawara moom foog mu dem sawara waaye nag loolu mu amoon moo tax. bis bis bi del seere dañ koy génne sawara duñ ko dugal aljana nag waaye mbugal mañ ko doon mbugal moom dañ ko arrêté waaw bu Abu Lahab dee am loolu ku yàlla rëbb ni ka nekk sawara bu dee am teraangay màggal juddu yonent bi te bég ci ab ay seconde rek kon ñun ñi ko gëm di topp sunnaam di ko def at mu nekk di fàttaliku guddi googa kon ñi koy def ñoom lañuy am kenn xamuñu mu eh, seytaane nag li muy bañ mooy lu lay lu lay jox tuyaaba seytaane mi ngi liggéey liggéey bu rëy rëy rëy nag loolu xam loo xam ne bokk ñi ngi jaar ci Leral FM di ko di ko jàllale ci mbokk yëpp di leen ko yóbbante yéen waa Leral FM seytaane dafa mën a yàq tuyaaba jullit ñi dañoo séddali ñaari xaaj ñenn ñi dañ ni gàmmu biddaa dafa araam màggal juddu yonent ci boppam biddaa la dafa araam ñi ci des daal ni farata la ñun kenn baax wu ci ndax ki ëppal ak ki manqueel ñoo bokk atte léegi ñu ëppal ñi nag ñoo waral ñi ñii manqueel di manqueel parce que ñi nga xam ne si dañoo ëppal dégg naa dégg naa ko benn waay ci fan yii loolu maa ngi leen koy yóbbanti yéen waa Leer FM kooka euh, nii ñi doon porter plainte Ahmed Cissé ngir wax ju ñaaw ju wax kii moo moo gën a jara porter plainte benn waay wax na ci euh, ci euh, ci réseaux sociaux yi am nañu vidéo bi danaa leen ko jox nee na gàmmu moo gën a nekk farata julli moo gën a nekk farata woor moo gën a nekk farata génne asaka bu boobaa ña ca des ca côté ba ci des dañ naan gàmm ci boppam bokkaale la gàmm biddaa la gàmm bon la kon nag ku tudd fukk koo xam ne fukk la tudd boo ko manqué lee ba woowee ko juróom du la wuyu waaye boo ko ëppalee ba woole ko fanweer it du la wuyu ki tudd fukk daal fukk lu gàmm mooy lan fàttaliku juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na am na loo xam ne si mag ñi dañ koo wax te ñu bari dégguñu ko dañuy wax ni guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën laylatul qadri loolu ñu bari wax nañ ko guddi la goo xam ni moo gën a màgg laylatul qadri waaye guddi googu mooy guddi ga Seydina Muhammad juddoo benn guddi la woon jeex na mooy guddi ga woon ca Màkka bis ba mu juddoo woon ca fukki fan ñaar ci rabiul awal guddi googa lañ wax ni moo gën laylatul qadr mais yeneen guddi yi ñëwaat maanaam anniversaire bi la kon ci anniversaire bi la ñuy màggale juddu ga nga xam ne si fekke wuñ ko woon laylatul qadr nag laylatul qadr nag day répété wu at mu nekk laylatul qadr at mu nekk at mu nekk mu répété kon buñ ne buñ ne buñ ne guddi gàmmu moo gën laylatul qadr mooy guddi ga ñuy gàmmul gan guddi la ñuy gàmmul mooy guddi ga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo loolu ñëpp ñu bari war nañ ci xam kon ñi manqueel ak ñi ëppal ñoo bokk benn àtte ba tax na euh, muy guddi goo xam ne àddina bi yëpp jullit ñëpp ñu ngi koy màggal di ko réel euh, di ci def li nga xam ne si mooy lan jaamu yàlla euh, ñun nag ni nga xam ni noonu lañ koy màggale ñun niñ koy màggale bokkut ak ni ko ñeneen di màggale am na ñoo xam nañ koy màggale ku sikkal gàmm rek ñoom ñoo tax ku sikkal gàmmu ñoo tax eh, dañu ni kii màggal julli yonent bi sallallahu alayhi bis bi mu togg ay ñamam yu neex soppi cinam soppi colkaam góor ak jigéen duñ jaxasoo wane ak mbégte ñin leen lii lan la ñu ni bis bii kat ci la yonent bi sallallahu alayhi juddoo woon mooy anniversaire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu moo ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ bàyyi na ngeen di na ngeen di kontaan ci yërmande gi yàlla gi leen defal ak nga leen li defal te ngeen ci wane seen kontaante na ngeen koy tul di ci wane seen kontaante loolu ñun nag ni nga xam ne si noonu lañ koy defe danañu soppi suñuy cin danañu dalal suñuy gan danañ fexe ba séparer fi góor ñi di nekk ak fi jigéen ji nekk duñ jaxasoo danañ fexe ba benn mooy yàlla du fi am danañ fexe ba bëccëg bi au lieu que ñuy toog ak nit ñi rek di saafonteeka waxtaan ak siyaarante ñu fàttali leen ci seen mbiru diine mu nekk benn congrès boo xam ni dañ ciy génne ay masala ku fiy jóge am lool dolli ko wàll ci sa wàllu yàlla bu guddi gaa nag danañu teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que yonent bi Euh, tagg woo taalif jëmi ko rek mokkal na ko yéen tamit loo ko way mokkal na ko te boo koy jàng mu ànd koog yow kon guddi danañu way di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa waaye it li ci ëpp solo ni ko sëñ Abbas daan defee euh, dana am ñaan yu ñuy jàng mun yaa man azhara al jamila wa satara al qabiha wa lam yuaxid bil jaridati wa lam yahdi sitra wa yaa azima al afi wa yaa xasana tajawusi wa ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار lii da da sëñ Abbas daf ko daan wax ñi di ci ànd bañ am ci lu mat ñaar fukk benn bu nekk ànd ak salaatu fati lii sëñ Abbas nee na bu ñu ko defee sax gàmmu nañ kon ñun kër Sëñ nii lañuy gàmmoo waaye ñi fexe nag ba yem fi nga xam ni fa lañu yàlla wan yemloo gàmmu biddaa la biddaa biddaa nag buñ ko biddaa buñ ko waxee du du jaagee ni mooy biddaa bu bon biddaa mooy loo xam ne si amul woon ca jamono yonent bi sallallahu nii ñu koy organiser woo nit ñi tànt ay tànt rey ay nag def ay bernel loolu amul woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yonent dafa ni woon sama gannaaw képp ku sos loo xam ni sii lu rafet lu baax la na xam ni loolu sama sunna la ànd naa ci te bu ko defee dana ci am tuyaaba ku ko ca toppam dana ci am tuyaaba ku sos lu bon nag na xam ni am na ca bàkkaar ku ko ca toppandoo am nañ ci bàkkaar kon lépp lu am gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy xool ba xam lu baax la wala lu bon la bu dee lu baax la neel yonent bi sallallahu def na ko bu dee lu bon la neel bàkkaar la ñun nag lépp lu ñuy def ci gàmm gi rek day day fekk loo xam ne yonent bi defoon na ko yonent bi sallallahu waxoon na ni mbooloo moo xam ni dañoo àndandoo di tudd yàlla géew di tudd yàlla ma toog ak ñoom tuyaaba ja moo ma gënal tuyaabay goreel ñeenti jaam ci banu Ismaïl lii la yonent bi kon nag ay nit ñu toog mooy ñu yàlla xanaa di tudd yàlla ci bisu gàmm ni dañuy gàmm loolu kenn xamul nu tollu ci ay tuyaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni waxoon na képp koo xam ne si euh, togg na ay ñam di ko bendeel di ko jox ay nit nee na maanaam euh, biir bu tooy bu ne lépp loo ci def yàlla da koy jàppe ab sarax kon même li ñu togg di ko ganale gan ñi di ko def ay benn lépp day am day nekk tuyaabay sarax te dana am benn xissa buñ ci nettali bu gàtt boo xam ne xaw ma dana xaj ci émission bi wala déet sëñ Abbas moo ko nettali woon dafa ne woon dafa am benn nitu yàlla boo xam ni dafa dafa dafa doon tere waa këram ñi génn seetaani gàmm benn bis mu am benn soxnaam bu génn dem seetaani gàmm bam mu demee mu am ay beñe yu ñu defar di ko séddale ci gàmm ga soxna sa am ca beñe ba indaale ba mu dikkee beñe bi neex mu ne daal moom yéene naa ci sama sëriñ bi bàyyi ba ci suba sa may ci sëriñ bi sëriñ bi daal ci jëfandiku sëñ Abbas say nettali de nee na toog ay fan mu woo ko woo soxna si ni ko waaw beñe bi ma may keroog foo ko jëlee soxna si di hésité nan la koy waxee ni ko damaa demoon gàmm muy xalaat ba mujj rek mu tekk fi itam ni ko wax dëgg sëñ bi xanaa danga may jéggal damaa demoon benn gàmm bu ñuy teggee yenn bi sallallahu ñi di fa séddale ay beñe lañ fay séddale nag beñe yooyu ca laa la ca jox la ci mu ne ko man nag ñaar fukki at gi nii may dugg xelwa am lu may ñaan sama borom beñe ba ma lekkee beñe ba daal lu ma lëndëmoon rek ci la ma yàlla wuññil na ma ko keroog mboolem lu ma doon sàkku ci sama borom ba ma lekkee beñe boobu ci laa ko amee kon nag eh, képp koo xam ni yaa ngi def ci guddi yonent bi yéen ñi taal seen i caméra ñëw di jël ñiy wax ci yonent bi kenn du leen ci ëppale lu ngeen ci ñaan yàlla dafa leen ko ci seen chaîne yi ñi nga xam si ñooy dafa jënd ay nag di indi ñooñaat day bokk ci lool dem na ba ci nga xam si amuñu lu ñu indi amuñu dara waaye day ñëw pour lekk si lekk ga ngay lekk sa ci xam ne lii ñu ko préparé gàmm nga lool sax dañ ci am tuyaaba waaw ñun daal nii lañuy ñuy gàmmoo di ñaan yàlla mu fekk la ko ay at yu bare bare bare bare defal ñu wër def jàmm ci réew mi def jàmm ci waa réew mi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.